dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi ñu xëyandoo yéenekaay gi di direct news mu xëy di ñu xamal lan ñu ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi ñoo ngi sonn ba maara détail yi ñaxtu yi maanaam ma ngi ballee fenn fu nekk njiitu réew mi di président Macky sal dafa waxoon ne ci ab guerre la ñu nekk waaye nag médecin doctorat yi ñoom arme yi nga xamante ni yoroon nañu ko ngir jàmmarloo ak covid 19 maanaam teg nañ kontank ci suuf la ko waral mooy jafe yi nga xamante ni moom la ñu dund maara détail yi ndax dañuy sàkku jot ci seeni salaire ak seeni indemnité yéen a kaay gi mu ñu xamal naan ñu situation yu garaaw a garaaw yu doy waar jamono ji maanaam moom la patient yi nekkee ndax ñi nga xamante ni ñoo doon surveiller ñi tëdd ci lali hôpitaux yi jamono ji ñoom mer bu futu journal bi nee na ginnaw médecin contractuel yi ak waa SUTSAS ak SAMES médecin doctorat yi jamono ji nag ñooy wane seen ñëgg-ñëggu xola Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ni moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu wér gi yaram gi maanaam bëri na ay digga ay engagement yoo xamante ni maanaam jëloon na ko te ba léegi ni defu ci lenn a direct news maanaam moo xëy di ñu ko xamal te nag nee na mbir mi lu ngeen ci xamul lu toll ci téeméer ak juróom benn fukk ci ay agent de santé yoo xam ne maanaam ba mbir mi commencé ba léegi amee nañu coronavirus te loolee li nga xam ne moo ko waral mooy agent de yi amuñu ay jumtukaay yoo xam ne danañu mën a jël seeni matukaay ci seen bopp yéen kaayu Pape Diogoy Faye gii di direct news moo xëy di ñu ko xamal yéen gii di libération mu xëy di ñu xamal naa ñu jàngoroy coronavirus ni nga xam ne moom lay lawe ci réewum Sénégal law gi garaaw na génn xeetu garaaw goo xam ne maanaam maarale taal jamono jii mën nañoo wax ne lu toll si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay nit ñàkk nañ ci seen bakkan am na si ñaar fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne maanaam ci ay cas grave ñu niki démb rek maanaam ñeenti nit ñàkk nañ seen bakkan yéen a kaay gii la turbina mu xëy di ñu xamal la ñu en tout cas li am ba des daal di président Macky Sall moom jamono ji ma ngi ci ab quarantaine waaye journal bi dikk na ana nan la Macky Sall di gérer dossier yi ak entraînement bu metti bi njiitu réew mi di président Macky Sall a kaay gi mu bi nga xamante ni moom lañ fi jëlee woon jamono ji nag mën nañoo wax ne loolee erreur la yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Ngoone Ndour mi nga xamante ni moo jiite SODAF nekk directrice bu Prince Ara xëy na séq waxtaan wu yaatu ci yéenekaay gi di Rewmi Quotidien maanaam dafee ko dëggantaan ndax lépp Ngoone nduur wax na ko wax na ay jaar-jaaram wax na école yi nga xam ne maanaam fa la jàngee jànge na école Soumbédioune jaar na di jànge na Angleterre moom Ngoone Ndour laaj nañ ko lan moo tax ngay muuru nee na bi borom këram génnee àdduna si la nag commencé muuru bi muy muuru ba muuri am na ñu bari ñoo xamante ni dañu doon wax naan ko maanaam dindil sa muuraay gi waaye nag moom dafa gëm ne dafa war a muuru moo tax mu continuer di muuru ba tey ci yéen kaay gii di réew mi ko di jee moom Ngoné Ndour rakk Youssou bi wax na ci droit d'auteur yi wax na ci ñi nga xam ne ñooy ŋàññ Sodafa wax na ci BSDA wax na tamit ne jiita Sodafa maanaam cent pour cent ñëpp apprécier la loolee mënul nekk wax na ni nga xam ne moom lay dundee critique yi wax na digganteem ak Pape Diouf ak li nga xam ne moo fi dox ba Pape Diouf bàyyi Prince Art wax na ci lu jëm ci seen petit ak innovation yi nga xamante ni fas yéene nañ ko se waxtaan wu yaatu la séq ak réew mi quotidien yéen kaay gi di suddi quotidien mu ñu xamal ni ki démb atte nañu ko waaye nag dañoo wax ne nañu ko tëj ci li ak dundama mi nga xamante ni moom tim dañu ko rayoon ne ñoom lañ njort mi nga xam ne maanaam tegoon nañ ko loxo boobaak léegi toll na si ñetti weer ca diwaanu Mali en campagne ci gox bi ñuy wax Tumbuktu journal bi nee na ab garde corps dañu ko rey bëri na ay jege jegeñaaleem yoo xam ne tegoon nañ leen loxo dañu leen a bàyyi nag moom Soumaïla Cissé jamono ji nag ay jegeñaaleem nee na ñi ko teg loxo nee na ñu ma ngi si jàmm nekk na ministre atum 1993 ba 2002 nekk na ñetti yoon candidat élection présidentielle yéen a kaay gi di réew ko di jéem moo ci xëy di ñu xamale ak moom ak ci lan lay dund yéen a kaay gi di sunu làmb mu xëy di ñu xamal ñu Sa Thiès moom nag dañu ko bëggoon a tëgal ab combat digganteem ak rëg fay nañ ko 40 millions mu lànk di laaj 60 millions stade yéen a kaay nee na lu jëm ci wàllum jënd ak njaayum joueur yi Manchester City jamono jii dafa peer njaay Liverpool ak Manchester United génn na lu toll ci 54 milliards fay ko Koulibaly ngir nag mu jóge Naples dem Manchester City